feneen fu ne da ngay yaakaar waaye fii ku fi teew ku ne boo fa ne jàng rek ab diir dina la wóor ne mën ngaa teg sa loxo ci alxuraan ne jataayoo na ak Sëriñ Tuubaa ndax moo wax ne ku fi ne jàng ma fekk la fi baa nga fekk ma fi amut kon nag mi ngi tawasul ci barkeb barab bii ak seen jëmm yi tedd yi di ñaanal Sëriñ Tuubaa mii di Cheikh Ahmadul Muntaxa suñu borom dolli ko dolli ko wéral te bu ko kattan yàlla dara tewu ko te murid luñ maasa ñaan ko yàlla yàlla def ko ne daal amul kàddu genn kàddu rek la am mooy firndeel ak cantam ak ñaanam ci sëriñ bi liggéey bi jañuñ ci dara ñoddiwu ci dara ndax jañ ak ñoddi mu ngi ci loxol sëñ te mooy sëñ Tuubaa rek lay sàkku képp boolewu ci dara kon kàddu gi noonu la gàtte di sant ak ñaan te lépp delluwaat na ko ci seen loxo ndax daa yéene sant rek waaye yéen a xam nu ni sante